réew mi bañ na dootuñu nangu kenn ñu réew mi bañ naa réew mi bañ naa déedéet dootuñu fe nangu bu mu jaam réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn jaay nu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu déet dootuñu fi nangu buumu jaam. yoon lu ngeen di wax ñaw baax na si ñoom bu ñu toogoon seen nous nday yi bañ marche kenn du leen nous bii yoon mu ngeen di wax booy nous ñoo doon taal réew mi kon boog ouvrez le feu seeni bakkan amul valeur ay nous lañu yu dee c'est bien fait pour eux bii yoon lu ngeen di wax ba tey da ngeen di weddi askan wi ngeen gis ay junni mbër te ba mënu leen gis benn nervi bii yoon lu ngeen di wax si chasse à l'homme on assiste à des exécutions publiques. Où sont les droits de l'homme Bionne, publiquement la new land Si si en plein jour. C'est un message de terreur. Ils sont en train de nous dire, le prochain parmi vous qui ose manifester, ce sera à son tour. Hé, frère, ils veulent qu'on voit tout. Ça, c'est une mise en scène macabre et sanguinaire. Ils veulent qu'on voie tout, le sang de nos frères, pour qu'on arrête de réclamer justice et surtout qu'on arrête nos chants révolutionnaires. Hey, que ça. du Yangigis ngi gis yaa nous gis kii tànge di ram si bir dënn yaa gis ñu préparer psychologiquement si jamonoy dictature yi nous nar alors qui terrorise qui qui terrorise qui les mots sont importants le mot terrorisme ne sort pas de leur discours par hasard tous les leaders d'opinion et les presses les plus libres sont sous leur radar. Pourquoi ceux qui sont assis sur notre pétrole parlent de terrorisme quand le peuple s'exprime Et toi, t'es dans leur camp T'es avec eux, hein T'es avec ceux qui nous oppriment La balle est dans ton camp. Les armes sont dans leurs mains. Et les balles sont dans nos cœurs. Et les balles sont dans nos peurs. Et les balles sont dans nos pleurs. Mais, mais nous, on a choisi de résister. Allez, allez au-delà de nos peurs. Allez au-delà de nos terreurs. Réfléchis. Khalatel xalaatal waaye bii yoon bul jiital politique bul jiital politique bul xeex ngir sa parti Billahi sunu ak ak yelef la ñu bëgg sul, ka kaay ñu ànd pour une fois pour la patrie Pour pour Sénégal free xeex ngir téye li taxoon xeex ngir téye li taxoon sunu maam yi ñàkk seen bakkan frère ku seetaan doon complice bi yoon woo naa la ci xeex ngir jàmmi réew mi bul toog di seetaan lu ñaaw lii ngay gis. réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noonu réew mi bañ naa

dañu foogoon ni ñun ak far dañu ñun ngeen di Nous mo taxone ñu leen di police bi taxul door ku ñom di xair état bi sa ngay deret lal moytul policier bu armé jusqu'aux bul dof gardien de la paix bëggul sa yaram limu bëgg président de la si pire police bi ñep yamunu ma wat ko si pire police bi ñep yamunu waye exception bi règle bi rek lay dëggal ndayu criminel yi moy ki armé police jox ko ndigal ni ko mu tiire bal réel si tënn mbaa si bopp rey doomu jàmbur jéggi néewam dem te yoon du ko topp bàyyi nanu Sonko du ndam ba may jubilé loolu taxul won may xeex

déglu nan sa discours waxoo si aali kallat gi mooy firndeel ni déggoonu saawaay dox six mille kilomètres jooyi neewu Charlie lu ëpp téeméer si ndawu réew mi dee si géej gi kenn xamul lan nga log ba yeyoo yàbbi sii ba tey waxoo si nervi yi xaju xaraam yi ngeen di xontu di leen engraissé borom xel yu oyof yi gànnaayu ba diis di xoqatal sénégalais yi di leen agressé askan wi nee nañu xaju dee yooyu gis nañ leen te am na ñun si xàmme nañu ñaan yàlla jàmm ci réew mi nee nañu beneen yoon bu réew mi tàkkee seen ay nervi lañu koy xambe amul layam layami discours Doliprane fajul jàngoro réew mi de discours médecin après la mort du mooy dundalaat néew yi de <laughs> wax ju sedd ji nga indi daa mel ni c'est trop sa patt bu yàgg moo tàngal neer yi bàyyil mu sedd nga xëpp ci xal dinu jaay dooleeg xolu marto tax jeunes yi dóor la ci xeer yi déggoo ñu de bu fekkee yaa ngi ñuy dégg nañu tijj enquête ngir teg daan ñi fàdd ndaw ñiy rey te libérer tous les prisonniers politiques te jàpp bandi yu mag yi xam nga leen mooy ñuy détourner suñuy fonds publics. réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noor réew mi bañ naa. réew mi bañ naa diine dootuñu fi nangu buumu jaam jaam man laay ndex kenn si mbër yi